el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 seydina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di dalalaat ak jaam ci seen page chaîne tv ëttu soxna yu baax yi ci seen jotaay bii di yoonu ndaw ñi la voix pour la jeunesse comme ni ñu koy defee rekk suñu jotaay bi jàll ñi ngi doon fàttalante ak yéen ci jëfe li nga jàng li nga jàng ci sa diine ba xam ko nga jëfe ko kon tey dañuy ñëwaat ak yéen ci beneen tomb beneen point muy bàyyi xel yàlla ci say jëf xam ne kon doomu aadama fu mu tollu rek dafa war a bàyyi xel bu baax a baax suñu boroom subhanahu ci ay jëfam bàyyi xel gi ngay bàyyi xel yàlla ci say jëf mooy mën a tax ngay jëf jëf yu baax mën a jëf lu rafet mën a jëf lu jag mooy tax itam nga mën a wax wax ju baax wax lu jag wax itam lu rafet booy bàyyi xel sa boroom subxaana wa ci say jëf mooy tax nga mën a jëflanteeg sa moroomu doomu aadama yi ay jëflante yu rafet ndax ñi nga xam ne say moroomu doomu aadama lañ yéen a bokk leen bind yéen a leen moom yéen a leen sàkk muy yàlla subxaanahu wa taala yàlla moomu nag dafa bëgg doomu aadama yi lool te fonk leen bëgg na leen lool lool lool ba ñu gënal ko lépp maanaam mboolem lu suñu boroom subhaanahu wa bind doomu aadama moom moo ko ci gënal kon ki nga xam ne moom doomu aadama la ni yow nekk sa moroomum doomu aadama nga jàkkaarloo moom di ko gis li nekk ci yow nekk ci moom nga koy xool di jàkkaarloog physique maanaam ngay gis ci moom ay bët di gis ci moom bakken di gis ci moom gémmiñ di gis ci moom ay ay nopp di gis ci moom ay loxo nga xam ne cër yooyu nga xam ne yaa ngi koy gis ci moom yépp yow itam boo xoolee sa bopp maanaam loolu nga fay gis yaa ngi ay bët ni moom yaa ngi ay nopp yaa ngi ak bakkan yaa ngi gémmiñ maanaam daanaka rek seen yéen a yéen a nduroo lépp ndax niñ ko bindee noonu lañ la bindee niñ la bindee lañ ko bindee dañ koo bind ci suuf ak ndox yow itam dañ laa bind ci suuf ak ndox léegi kooku maanaam kon mbindeefum yàlla la comme yow ni nga doonee mbindeefum yàlla kon dangaa war a jëflanteeg moom jëflante bu rafet li nga bëggee ni nga bëggee yow ci sa bopp ku lay defal lu baax ak ku lay defal lu rafet bëgg ku lay waxal wax ju maanaam wax ju baax bëgg koo xam ne daf lay waxal lu rafet kon noonu noonu nga war a def sa moroomu doomu aadama bi moom itam di ko waxal lu baax di ko waxal lu rafet waaye loolu nag du mën a nekk lu dul ne danga bàyyi xel sa boroom ci loolu faawu dangay bàyyi xel yàlla ci jëf yi ngay jëf bàyyi xel yàlla ci wax yi ngay wax loolooy tax ngay mën a def lu rafet mën a def lu baax suñ boroom dafa bëgg doomu aadama fonk ko lool te dafa bëgg lool itam kuy jëflanteeg ñoom jëflante bu rafet kon yow da war a xam ne ñi ngay jàkkaar lool di jëflanteeg ñoom maanaam ñooñu waroo leen a gis sax en tant que ñoom waaye da war a gis yàlla ci say jëflante. gis yàlla ci say jëflante waxuma gis jëmm yàlla ji ndax yàlla laa tudrikuhul absaar ay bët du ko gis waaye nga bàyyi xel yàlla ci say jëflante. maanaam danga war a bàyyi xel yàlla ci jëflante gi ngay jëflanteeg ñoom soo saa yooy defal dara doomu aadama nga xam ne lii defaloo ko ko danga koy def ngir jëmi yàlla yàllaa tax nga di ko def defoo ko ngir moom waaye danga koy def ngir yàlla bu boobaa suñu borom dafay kontaan lool te jëf jooju du mën a doon lu dul jëf ju rafet du mën a doon lu dul jëf jëf ju taaru ndax bàyyi xel gi nga bàyyi xel yàlla moo tax faaw li ngay defal sama moroomu doomu aadama boobu rek nu mën def day rafet booy waxal booy waxal sa doomu aad sa moroomu doomu aadama itam noonu bàyyi xel gi ngay bàyyi xel yàlla ci li ngay bëgg a wax nii mooy tax li ngay wax su génnee wax ju rafet rek lay doon ak wax ju taaru léegi ana lan moo tax doomu aadama mënul jëflanteeg moroomu doomu aadama mi jëflante bu rafet ana lan moo tax yow nit ki mënoo jëf jëf yu rafet mënoo jëf-jëf yu taaru mënoo wax wax ju rafet mënoo wax wax ju taaru loolu ana lan moo tax dara taxul lu dul ñàkk bàyyi xel yàlla rek léegi lan moo tax mënoo bàyyi xel yàlla moomu yàlla mi la bind sàkk la moom la baax lool bari yërmande lool ana lan moo tax yow mënoo koo bàyyi xel ba mënoo jëf-jëf yu rafet wala mënoo wax wax ju rafet ci koo xam ne dafa doon buur bu baax bur bu la bëgg yërëm la lool yërmandeem sax tax sax mu lay woo naan la yow ana lan moo tax lan moo la war sama digg ak yow ana lan moo la war sa war sama digg ak yow di la bëgg rek bëgg rek ndaysaan nga baax bëgg rek ngay jëf jëf yu baax ak di wax wax yu baax bëgg nga koy bàyyi xel moom yàlla subhanahu wa taala fi mu ne loolu bu ko neexoon du ko du ko ci fekk waaye mbëggeel rek ak yërmande tax mu lay mu mu lay mu la koy wax yow ñëwaat ne la di la adressé parole yooyu naan la yow doomu aadama yaa ayuhal insaan maa xarraka bi rabbikal karim ana lan moo la mën a wor ci sa digganteeg sa borom bu baax bii ana lan loolu lan moo tax lan moo la mën a wor ci sa digganteeg sa borom ba tax mënoo koo bàyyi xel ba tax sax ngay jëf jëf yu ñaaw mbaa ngay wax wax ju ñaaw di ko jëflanteeg maanaam mbindeefam yi nga xam ne bind na leen te bëgg leen lool muy doomu aadama yii yàlla moomu lan moo la wor ci moom ba munoo koo bàyyi xel lan moo la wor sa ci moom lan moo la wor ba munoo xalaat sa digg ak moom yàlla mu baax moomu nga xam ne fu mu tollu rekk mi ngi def luy tax yow nga féete kaw fu mu tollu rekk mi ngi lay defal loo xam ne day tax nga baax féete kaw doon doon ku kawe doon koo xam ne dañ koy bëgg dañ koy naw yàlla moomu dafa bëgg sax moom di la di la di la di la di la woo ëllëg moo tax mu lay woo mu lay woo bëgg nga baax saa yoo jëflante kenn rek mu wan la mbëggeelam ci yow fii la malaayka yi ndeysaan wax suñ boroom ne ko xanaa yow dangay du dangay wàcce doomu aadama ci kaw suuf moom mi nga xam ne bu fa demee yàq rek la fay nekkee ak tuur deret suñ boroom lan la def daf laa jëlal défense daf laa défendre yow doomu aadama wa id qala rabbuka lil malaa'ikati inni ja'ilun fil قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون لم تتك داري خمال آدم أي تور لغي لول لب لن موكو ورل بغل رك جسنا نملا ديفان دري فوف ci kanamu malaayika yi léegi bu ko neexoon loolu mënoon na koo bañ a def waaye bëgg la rek ak yërëm la ak nga gënal ko lépp lum bëgg rek yow doomu aadama yamatul foofu ki nga xamante ne nii mooy sa noon bi di iblis suñ boroom digal ko bind bind bind bind aadama digal maanaam mboolem ñépp ne leen sujjóot leen iblis daal di bañ ne moom du du sujjóotal aadama ndax kat ñii man maa leen gën waaw ne moom moo moom moo ñu gën moom Iblis léegi yàlla wax moom mu bañ ne du ko def léegi kooku loolu noonu rek yow sa jëmm yow doomu aadama yow nga tax suñu boroom maanaam génnee ibliis ci yërmandeem maanaam suñu boroom dafa génne Iblis ci yërmandeem ndax loolu noonu mu wax rek bañ laa su jootal motax suñ borom génnee ko ci yërmandeem loolu lépp yàlla di ko def ngir yaw doomu adama nga wara gis bu baax suñ borom nim lay taxawoo manam jamono bu nek nim lay taxawoo rek subhanahu wa taala léegi ba ba ba iblis bañé mu génnee ko ci mandem iblis lan la def dafa dafa dafa tekk suñ borom ne ko ñii tax nga def ma ni manam dina dox sa dinaa fexé fexe ba dox sa seen digg ak yaw dina fexé ba dox sa digg ak ñom waaw dinaa leen fàttaloo sa yërmande yërmande dinaa dox sa diggante digganteeg ñu di la sant dinaa dox fexe daal ba duñ la topp duñ la jaamu lan la ko suñ boroom wax mu jëlaatal la défense ne ne ne ko maanaam ñi ngi noonu waaye am na ci ñoo xam ne moom samay samay samay samay samay maanaam daf leen a bëgg moo leen di aaral boppam di leen sàmmal boppam ok léegi loolu noonu ba tey suñ boroom di la défendre xalaatal ci loolu xalaatal ci loolu inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan illa man ittabaaka min alxaawin nga xam ne sa boroom yow kon jamono bu nekk mi ngi lay défendre lu ñëw rek muy indi loo mu mu mu mu def loo xam ne ndeysaan day tax nga nga féete kaw léegi lan moo la mën a wor ci sa digganteeg sa boroom boobu ba tax yow doo ko xalaat ba tax yow doo ko bàyyi xel lan moo la mën a wor ci sa digganteeg yàlla mu baax mu mu mu mu mu bari yërmande moomu subhanahu wa taala ba tax munoo ko bàyyi xel ci say jëf munoo bàyyi xel yàlla ci say jëf lante faaw bala ngaa mën a jëf lanteeg nit ñi jëf lu jëf jëf jëf jëf yu baax faalu yow faaw yow ci sa jëmi bopp bala ngaa mën a jëf jëf yu rafet dangaa bàyyi xel yàlla moomu subhanahu wa taala kon bàyyi xel gi ngay bàyyi xel yàlla moom mooy mën a tax ngay jëf jëf yu rafet waaye itam moom mooy mën a tax ngay jëf jëf yu taaru mooy mën a tax doomu aadama yii nga xam ne say moroomu mbindeef lañ da da dañoo nekk ay doomu aadama comme yow bala ngaa mën a jëflante ak ñoom jëflante bu rafet faaw da ngay bàyyi xel yàlla bu baax a baax di ko teewlu bu baax sa boroom subhaanahu wa taala xam ne mi ngi fi yàlla jugu fi yàlla mi ngi fi mi ngi fi te du fi jóge ba mu mukk kon dee ko bàyyi xel ku ñuy bàyyi xel la moom yàlla subhaanahu wa taala dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax xamal ni bu baax yàlla mi ngi lay dégg mi ngi lay gis foo mën a nekk loo mën di def yàlla mi ngi jàkkaarloo yow di la gis waaye itam di la dégg kon dee ko bàyyi xel bu baax loolu dee ci xalaat del xalaat ne foo tollu yàlla mi ngi lay gis del xalaat foo toll ne yàlla mi ngi lay dégg loolu boo koy bàyyi xel rek dina fex dina tax yow say jëf dina rafet dina taaru dina jag dina jaar yoon dina tax sa moroom doomu aadama yi nga fonk leen teg leen fa nga leen war a teg di jëflanteek ñoom jëflante yu rafet jëflanteek ñoom jëflante yu taaru bu loolu itam boo koy def sa boroom dina la bëgg ndax doomu aadamaam yi daf leen a bëgg lool ay mbindeefam lañ di ay maanaam doon alalam maanaam doomu aadama yi ay alalu yàlla lañ yàllaa leen moom nit nag maanaam fi mu toll nii nit rek boo def boo ko defaree dara ci alalam boo ko defaralee lu baax ci alalam day kontaan ci lool waaw attan na laa sax maanaam neexal maanaam récompense la waxuma laa yàlla mi nga xam ne mooy aji kawe ji subhanahu wa taala li nga xam ne mooy maanaam mooy alalam mu mu mu moom leen mu moom ko téye ko maanaam moom ko fi mu ne loolu boo ko boo ko boo ko fonkee rek yow sa borom subhanahu wa taala yow ci sa jëmi bopp yàlla dina la fonk bu baax a baax kon del bàyyi xel yàlla bu baax ci say jëf di ko bàyyi xel bu baax ci say wax dina tax ngay jëf lu baax dina tax itam ngay wax lu baax ñi ngi waat bu baax a baax ci mboolem kàddu yi lu ci jóg ñu santé ko suñu borom subhanahu wa taala waaye lu ci dëng rek ñu xam ne suñu di la ak suñu matadi di leen joxaat beneen yoon rek daje ci ëttu soxna yu baax yi ci seen jotaay bi di la voix pour la jeunesse wasalaamaaleykum wa rahmatullah إلا الله